أزير مع الأبرار حين أزير وزن العداني هناك أزير أزير مع الأبرار حين أزير asalaamaaleykum bokk jullit yi ñuy déglu ak bokki taalibe yi jot nañu ndigal ci Serigne Mountakha Mbacké xalif général des Mourides yàlla na fi yàgg loolu te ànd ak jaar nag Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre porte parole xalif général des Mourides yàlla na fa yàgg loolu te ànd ak wér waaye ñu ne ci kilifteefu Serigne Fallou Mbacké imam mu sëñ Abdou Khadre ak kan nag teewaayu Alaaji Mbacké yi fay représentant xalif général des Mourides ci Ndakaaru ak lu ko ñu jëm nag ci bis ba ñëpp doon nit muy le 20 ak le 21 septembre ca place Diamalaye ajarat Sodou Khouma ak kuréelu julli géej yëpp am ànd koog sëriñ yi su jóg isbu tarxiya mi sëriñ Muntaxa jox ndigal ni dem leen ngay ànd ak soodo xama liggéey liggéey bi ren nag dafa am innovation bu rëy bi ci am ndax sëriñ Muntaxa dafa wax ni na doon bisu sikkar ak alxuraan ak jàng xasida ñu ànd koog nag sëriñ Amsatu Mbàkke moom sëriñ Soy bu yëpp fu ñu ne ci biir Ndakaar ñu ñëw teewe bis yooyu ak kuréelu xasida yi ni ko sëriñ Muntaxa waxee na doon bisu xasida ak alxuraan ak sikkar waaye xam nga ne nag la septembre mooy bisub maam Cheikh Ibrahima Fall ñu koy def ci ndigal nag sëñ Amdu Moodu Benda waaye nag sëriñ Cheikh Assou Ndiaye moo fay teew ñaan yàlla mu yàgg fee teew ànd ko bokkam ya waaye nag di bàyyi xel bu baax sëriñ Saliou Fall moom sëriñ Moodu Moustapha Fall moom ci kuréel bi la bokk waaye xam ngeen daañu def vernissage exposition bu rëy boo xam ne le 20 lay doon sëñ bi daa joxoon ndigal na ca ñëpp teew waaw kuréel di fàttaliku julli géej gi nag nee nañu coow mboolem daayira maam jaara fu ñu ne ci biir Sénégal ak bitim réew rawatina Dakar ñu ngi coow waa jàmmalaay waa littoral bi waa géejawaay waa Grand Médine yëmbal Parcelles Assainies ba Pikine ndax ñoom tubarkàlla ñooy toor gañ rawatina waa Parcelles Assainies kon nag waa jàmmalaay tubarkàlla ci taxawaay bu nga xam am nañ ko ci liggéey bi di ñaan yàlla defal nu jàmm bis daal mu ngoog le ak le 21 septembre ca place jàmmalaay bu ko kenn wuute wa nasrin wa huwa ni'ma